gan gi Momar ndaw moo jiite seen jiite itam euh, commission national de régulation des loyers ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM waaw jërëjëf soxna si maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy déglu seen rajo bi yëpp ci biir réew mi ak bitim réew jërëjëf ñu lay fay tàmbali laa jaale maître Ousmane Seye ñàkkul yooyu itam jot nga am loo jëflanteeg moom di ko jaale waa senegal yëpp waaw dëgg la moom maître Seye moom wax dëgg yàlla nit ku baax la koo xam ne euh, Sénégal yëpp ñoo ko perte kon nag euh, ñu ngi koy jaale euh, famille am yëpp di ko ñaanal suñu borom mu tertu ko ci àjjanaam yi gën a kowe ndax euh, ku ku ku nit ñi ràññee ci liggéeyam la mu am engagement mm-hmm. ànd ci ak passef bu rëy ci liggéey bi nga xamante ne bi moom la doon def ak yëngu yi mu doon yëngu mm-hmm. ci mbirum politique. Mm-hmm. jërëjëf alors ñu tàmbaleeg xibaar bi gën a bees xëy na jëm ci wàllu li ñuy jëfandikoo ñuy wax ni yenn denrée yi dafa commencé ñàkk te ay fan dong des ñu yegg ci koor gi bokk na ci suukar bu mokk bi ñu ne kenn tegatu ko gët ci ndakaaru ana lu waral loolu ak itam ndax euh, Ascosen def na boobu euh, seetlu ci marché bi. waaw comme ni nga ko gisee bari na ay situation yoo xam ne boo ko xoolee li ko waral mooy tout simplement li tubaab di wax. spéculation maanaam ab foqale goo xam ne am na ay jaaykat yoo xam ne foqale nañ ko ba tax ñuy denc ay produits ngir njëg yi yokk nag yoon da koy tere te nekk loo xam ne lu loo xam ne daal jaadu moom xaaju koo def. bu mm-hmm. ko defee da ngay gis ñu ne produit bi kat dafa amul fekk ne am na mais dañuy def ay système pour bañ euh, produit boobu ñu jaay ko. Mm-hmm. loolu mooy affaire bi nga xam ne moo nekk derrière tout ça. mbiram sucre bi looloo ci nekk. Mhm, bokk na ci. léegi lan la ci état war a jël comme ay. mesures léegi nag état dafay très li ñuy wax rétention de stock. Hmm. Euh, am na ay yeneen pratiques yoo xam ne tam nga ay dañ koy def yoo xam ne tam c'est interdit. loolu moo tax nag état boo xoolee temps yi yëpp am na ay brigades yuy wàcc ci terrain bi di verbaliser gars yi. Hmm. li nga xam ne nag moom la ci nit ñi war a def maanaam consommateurs yi mooy fépp fu ñu xam ne kooku am na suukar ne amul suukar nañ ko signalé suñ wootee ci huit cent bi quatre vingt soixante dix sept soixante dix sept euh, équipe bi dinañ dem foofu aussi verbaliser ñi nga xam ne ñoo fay euh, def li nga xam ne yoon tere ko. Hmm. alors lii yëpp bàyyeekoo euh, ci euh, njëg yi état waxoon ne daf koy wàññi euh, justement président àllarba mu wax ni nañu ko defaral évaluation bu njëkk waaye li askan wi évaluer ci marché bi mooy wàññite googu moom sottiwul est-ce que mujjut a nekk saafara su jur jàngoro. déedéet du saafara su jur jàngoro ndax am na yoo xam ne wàññeeku na boo ko xoolee sax d'ailleurs actuellement yi nga xam ne ñoo amoon jafe-jafe yu mel ni soble bi li taxoon mu am jafe-jafe mooy dëkk bañ ñu ko daan jëndee. di ko indi fii ci biir réew mi ba taxoon ñu calculer prix bi ci loolu dëkk boobu dañoo jeexaloon seen poulet buñ jeexalee nag xam nga dañuy yand dem jëndi feneen mm. te feneen fa nga xam ne foofu lañ doon jëndee ñoo ñoo gën a seerle bu baax a baax daanaka ñaari yoon ak genn wàll li nga xam ne moom lañ ko daan jëndee ci fiñ ko daan jëndee ba tax ñu calculer fa prix bi loolu bokk na ci li indi woon jafe-jafe ci njëgu lu mel ni soble bi ba tax ne Euh, sénégal yi gisoon mu xaw a yéeg léegi nag prix yi mi ngi commencé wàcc lu tax mu commencé wàcc parce que suñ soble mbay bi commencé naa génn. Hmm. sax maa ngi dégg béykat yi di commencé kaas naan waaw ñoom seen soble bi actuellement prix bi dafa commencé wàcc trop et que nañ tëj frontière yeeg ñoom seen pour loolu yëpp pour wane ne njëgi bii wàcc. Hmm. alors du gulet nag état songu ay opération pour wàññi njëkk mais ñaare euh, dafay mujjee taggatémbe ana souvent lan mooy indi problème bi fan lay lay faral di bloqué. waaw bokk na ci yenn jafe-jafe yi ki nga xam ne moom moo war a boole su boolewul jafe-jafe day am parce que euh, état mën na bañ xam ne fii ak fii ak fii ñi nga fay def loo xam ne yoon tere na ko donc moo tax képp koo xam ne. sa àq état jox na la ko mais par exemple waruñ laa jaay lu gën a seer wara a war nañ laa def nangam nangam nangam loolu bu la ko nit defee da ngaa war a saisir état ne ko man kat lii ñu ma teg du yoon il faut nga intervenir noonu la war a demee waaye nag Sénégal yu bari duñ duñ def loolu kenn ku nekk ak koy expliquer rek waaye lu bari duñ def loolu te loolu bokk na ci liy tax ba yenn dëng-dëng yi continuer hmm. waaye ku bugg mais dëng dëng dëng yi ni ñuy def nga mu deñ il faut que ñu signaler bi ko war a faj waaw ndox <laughs> ab docteur moom bu xamul sa jàngoro pour mu faj la day xaw a yéex. Mm-hmm. est-ce que état tam warul di wàccal boppam yenn saay ci marché yi parce que dañuy faral di wax ne numéro vert yi ngeen di joxe du dox boo wootee ba say aajo di faju nga nga sonn faral finalement nit ñi dañuy faral di tàyyi ci ci yooyu ngay wax. waaw numéro vert yi mu ngi dox dafa amoon erreur ci niñ ko bindee woon. ndax dafa am ñoo xam ne dañ génne woon ay feuilles waaye dañ cee bind <clears throat> huit cent huit cent quatre vingt soixante dix sept maanaam ñaari yoon huit cent balaa ngaa def li ci des. Hmm. te fekk na benn o rek nga waroon a tàppe huit cent. Hmm. ba pare def ci ba pare def soixante dix sept soixante dix sept numéro bi nit ñaa ngi woote te mi ngi dox. waaye contrôle régulier itam war na di am. <clears throat> waaw xam nga bu fekkee ne. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy contrôler bari wuñ trop. Hmm. contrôle dina am mais day day day yéex a wër fépp. Hmm. loolu sax bokk na ci li taxoon ñu wax ak président ne ko ñu jël ay volontaires de la consommation. Hmm. ba mu nangu ko ba actuellement tam liggéey boobu ñu ngi ci. pour taxawal volontaires yi pour que ñu mën a dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy contrôleurs yi sur le terrain. pour que daal lépp loo xam ne jëm na ci euh, réglementation daal ñu mun ko respecter. alors ñu wax ci meneen mbir euh, loyer bi booba itam état décidé ni daf koy wàññi wàññi gi euh, jurati coow euh, danañ ko defam duñ ko def ñu taxawal commission nationale bu nu la dénk yow ana naka ngeen nar a def bala amoon 2014 du amaat mooy tegab loi waaye kenn du ko respecté. voilà léegi benn bokk na ci benn ci li nga xam ne mooy lu bees li nga xam ne indi nañ ko mooy tëralinu taxawal lii nga xam ne mooy commission bi ñuy woowee commission nationale de régulation des loyers. Hmm. li nga xam ne nag moom moo nekk ci commission bi mooy ne moom moom lañ sant lépp lu jëm ci euh, jëmmal wàññi googu nga xam ne ñu ngi koy wàññi location yi ak lépp loo xam ne loi la wala tex réglementaire bu munti doon moo xam décret boo xam ne jëm na ci li ñu war a appliquer ci lu jëm ci location à la fois ñu ko su dee dafa laaj yoo xam ne yu bees yu ñu war a génnee ñu bind ko su dee dafa laaj ñu def ay proposition yoo xam ne dina tax ba nit a mën a jot ci location bi ñu def ko. Hmm. et cetera donc ñun liggéey bi commencé nañ ko laata sax kay ñuy ñuy taxawal commission bi ci kayit ndax commission bi ñu ngi ko taxawal alxames bi passé donc ça fait mais fekk na déjà ci biir une semaine ñun liggéey nañ loo xam ne. Hmm. amaguñu sax ay bureau wala ay. ay personnel pour mën a def liggéey bi ñu ngi utiliser bureau ak personnel yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère du commerce euh, defal nañ leen formation yeeg yooyu yëpp actuellement ils sont sur sur le terrain. yaa ngi ñëw ñaata ngeen ama amagum. waaw jotagum nañ quatre cent trente six appels yoo xam ne ci mbirum location la. Hmm. ci quatre cent trente six appels yooyu am na trois cent cinquante cinq yoo xam ne ay renseignement lañ doon wut. Hmm. li ci des mooy ñi nga xam ne dañoo am euh, jafe-jafe ak seen bailleur. Hmm. ñuy wax nag ne pour li nga xam ne mooy mbirum loi bi nga xam ne euh, décret yi nga xam ne moom lañ génnee pour wàññi loyer hmm. képp koo xam ne respecté woo ko dafa am lu la yoon di daan yoon nag mooy loi boo xam ne président Abdou Diouf moo ko jëloon muy quatre vingt un vingt et du vingt cinq juin quatre hmm. moo ne képp koo xam ne luye nga nit lu gën a seer li yoon wax dinañ la daal ñaari weer ba juróom benn weeri kaso wala alamande ba un million cinq cent mille francs CFA kooku mooy benn beneen bi mu ne képp koo xam ne da ngay luye kër laataa waa ji di fay weer bu njëkk bi war ngaa def surface corrigée bi wan ko ne ko ci lii nga sukkandiku pour fixer waaye bi jox ko ci copie donc boo koy xool quatre-vingt-dix-huit pour cent bailleurs yi ni ko ANSD waxee <clears throat> respecté wuñ loolu kon ñu ngi ci infraction te nag ñun dañ jël décision ne képp koo xam ne li ñu yoon wax defoo ko dinañ jël décision respecté li nga xam ne moom la yoon wax teg la daan yi wax lenn li ci nekk mooy tey jii hmm. ginnaaw équipe yi nga xam ne mooy équipe euh, commission bi ak équipe bu ministère du commerce hmm. loi quatre-vingt vingt et un dafa wax ni képp koo xam ne yokk nga lii nga xam ne mooy njëgu loyer maanaam nga bañ a respecté prix yi nga xam ne moom la état wax hmm. police mën na laa jàpp wala gendarmerie donc les officiers de police judiciaire sont concernés donc ñoom itamit dinañ leen dugal ci affaire bi pour que ñoom it li nga xam ne moom la yoon wax ne ñu def ko ñu def buñ ci jàpp yóbbu la ci procureur di nga am jafe-jafe kon ngi ñaan suñu mbokk yi comme nous sommes tous ay sénégalais. Mm-hmm. suñ bëggee réew mi dox na ken ku ne la nga xam ne moom nga yellool nga laaj ko la nga xamante ne bi moom lañ la sas itam nga def ko bu ko defee rek à la fois ndax boo xoolee li yoon wax ko suñ ko respecté bailleur bi nañ ko protéger locataire bi dinañ ko protéger. kon daal nañ xam loolu ñun daal dinañ appliquer la réglementation. Mhm. waaye li ngay wax yëpp euh, monsieur ndaw dafa mel ni 2014 déggoon nañ ko parce que ay loi yu fi yàgg la mais 2014 li ñu seetlu woon mooy la tukkee ca loi ba daal ci gàttal mooy ay njaboot yu ñu génnee ñuy wëri feneen fu ñu dëkk ba tax na ñu bari di dem ak prudence ne dootuñu jëlati yooyu risque est-ce que tam amul yoo xam ne état waroon naa jiital régler ko ba noppi soog a tàmbalee doxal euh, bés bi. moom la yoon may mu génne locataire. waaw ah, bu la nit ki ne damaa soxla sama kër nag. mooy juge. Hmm. waaw mu résilier contrat même soxla sa kër. Hmm. kese moo mun a génneel nit huissier sax mënul génneel nit waxuma la ak borom kër. Hmm. juge bi ci boppam bu jëlee décision ne nga génn ba pare décision boobu la huissier bi di jël pour ñëw ne la juge bi kat moo ne nga génn kayit gaa ngi nii kon da ngay génn. fii sama kër laa génne sama kër loolu amul fenn ndax kër ga moomatoo ko ndax mënoo dugg mënoo dugg ci kër waa ji wala néegi waa ji te moom autorisé wu la soo ko defee violation de domicile la uh-huh. kon bu kenn nangu ñu teg la loo xam ne yoon waxu ko hmm. c'est extrêmement important donc su fekkee léegi waa ji mënu laa su fekkee waa ji mënut a def prix bu ko neex kon kay yow li nga xam ne mooy sa àq ak def ko rek donc li amoon 2014 du amaat parce que bii paa am commission boo xam ne ñun dinañ taxaw pour que bépp loi ñu respecté ko moo xam loi boo xam ne day dal ci bailleur wala boo xam ne day dal ci locataire ndax dëkk bi fekkee ne yoon am na rek ñëpp jaar yoon rek bu boobaa coow lu jëm. Hmm. loolu noo tax ñun loolu mooy li nga xam ne moom lañ fas ne def ñuy wax tam bailleur yi képp koo xam ne sa waa ji fay na la bu fekkee daf nga daf laa fay jëloo ko. da koy dañuy déposé xaalis bi caisse de dépôt consignation buñ ko fa déposé xam non seulement jotoo sa xaalis mais demoo boo demee tribunal yow ci boppam yow la ñu parce que yow yaa bugg a appliquer augmentation li nga xam ne moom la ñu illicite du des prix du loyer. Mm-hmm. te loolu ñaar ba juróom-benn weer kaso xaj na ci. kon nag bailleurs xel xam li yoon wax ñu moytu dugg ci loolu képp koo xam ne tam fay nga sa bailleur bu bu bu ne du appliquer loi bi. Mhm. yoon may na nga dem seeti police wala gendarmerie. parce que loi quatre-vingt-un nee ñoom ils sont mhm. Mhm. pour régler loolu. laaj bu mujj bi donc important. c'est important laaj bu mujj bi mooy est-ce que commission bi am na euh, moyen wu euh, def liggéey bi koy xaar parce que liggéey bu dul yomb la euh, ndax aussi def ngeen recensement ba xam dëgg-dëgg ñan ñooy luye ci ci ci réew mi wala ci Ndakaaru. waaw déjà Euh, li nga xam ne moom la agence nationale de la statistique muy dugg ci kër yi di di compter nit hmm. li mu wax mu ne am na yaa trois cent quatre vingt un mille logements euh, yoo xam ne ñu ngi fi si trois cent quatre vingt un mille logements yi cent quatre vingt seize mille quatre cent logements mooy en nekk yi nekk en location. Hmm. kon li xew xam nañ ko bu baax a baax a baax. beneen bi tam mooy euh, ñun commission bi démarré guñ dara. ci li nga xam ne moo jëm ci suñu budget hmm. parce que ñu ngi koy defar pareegul ndax buñ defaree budget bi nag ba pare ba jël nag la ñuy jël moyens yeeg euh, ñi nga xam ne ñooy doon agent yeeg yooyu yëpp pour def liggéey bi nga xamante ne bi moom lañ ñu sant hmm. moom lañ ñu sas dañ fas ko génne def nag parce hmm. jërëjëf jërëjëf Momar Ndao ñu ngi lay gërëm fàttali ne yaa jiite ASCOSEN jiite itam commission nationale de régulation des loyers jërëjëf jërëjëf des loyers jërëjëf jërëjëf des loyers